seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat revanche ba diggante Lac de Guiers 2 ak Tapha Tine bile revanche bile combat kenn sañu koo bañ du Tapha Tine du Lac de Guiers kenn ku sañ a bañ bile combat gannaaw bu Tapha Tine doon rëbb Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ak Bombardier di mu lànk ba tëdd ca ñag ba ne bëriwut ak rëg-rëg Balla Gaye ba mu doon xaar ñoo fi desoon te olof nee na ku sañ te bañ sañ a nangu kon revanche am ak Lac de mu jël ko wala mu bëreeg Boña 2 gaston xam ne bile combat jaadu na faw mu taxawal ko waa kër Lac de Guiers ñoom bu dee ñoom ak ñoom rek noppi nanu seen viseur ka ca nekk mooy Eumeu Sène bu leen Eumeu Sène rëccee rek ñu jël tafaatin ñoom duñu mettil dara seen yoon nekkul ci leen adversaire bi ñu visé bu amee combat ñu dal ci tafaatin journal ba xam le ne père gaston nag la mu wax ca loolee mooy bu ñu waxee waxi nit ma taxawal bile combat waxi nit mooy ñu raisonnable bañ a seeral seeni cachet la dama ne combat bi taxawal nañ ko ba ñu ko laajee ci négociation yi mu xamle mooy dépassé nañ boobu étape kuy wax naan le combat est ficelé mooy dépassé nañ lépp lu jëm ci négociation léegi rien ne reste tout lépp mat na sëkk régularisation combat bi moo des te CNG ubbeegut ay buntoom saa yu CNG ubbi ay buntoom di ngeen gis promoteur bi pointé fa régulariser bi lu jëm ci wàllu officialisation combat bi it mag Gaston autour man Bombardier je me prépare en direction de cette confrontation ni ñëpp xaar sama retour au Sénégal te xam ne damay préparer ci sama combat kay préparer combat am diggante guy gi mooy Reug Reug mboolem lu ñu ko proposé ci bile combat moom Reug Reug d'accord na ca d'accord na ci adversaire bi ñu ko proposé muy guy gi d'accord na ca kase ba ñu ko proposé dañu naan sax Reug Reug ak waa Sénégal entertainment d'accord nañu juboo nañu fa mbir ma dese mooy leen da la mu bëgg mooy ñu létt ko wala ñu firi ko soit ñu jubóo guy gi jox ko avance wala ñu bàyyi ko mu dem seeti leneen te la mu xamle mooy rëg-rëg mooy bu ñu yox yoxalee mu génn ci presse bi bu génnee dana wax ne sama combat guy gi taxawul promoteur bu ma soxla na ñëw négocier sama combat bu ko defee ñu ubbil buntu waa Vox Arena ñi bëggoon combat ubbil buntu père bu dee ñetti tuq su bënn saañ bëreer lay doon combat bu neex lay doon bu combat bu taxawee danañ gis combat bu neex combat bu saf jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci bi ñu leen jox di daje ba ëllëg rek incha allah